ñu ngi woon ci baabu tanaqub mu nekkoon ci shurut yi waxoon na ni ñaari qadiya yoo xam ñoo bokk naw wala ñoo bokk jins ci la ñuy tanaqud di amee maanaam xamliya ak xamliya ba pare bii nekk saadiqa bii nekk kaadiba ixtilaaful kayfi am kadalika niki noonu tamit chartiya ak chartiya chartiya ci biir chartiya muttasila ak muttasila munfasila ak munfasila léegi ci biir nag muttasila am na ay naw muttasila mën na nekk ittifaaq mën na nekk luzum mooy muttasila xaqiqi yi munfasila tamit mën na am ittifaaq mën na am luzum yi mën na am inaad yi astafurlah mën na am ittifaaq wala inaad yi boo xam xaqiqi yi la bu ci nekk nag loolu lay limaar nii rek wax bi mu waxoon ni وزيد في هذا اتحاد حالها أي في اتصالها أو في انفصالها وفي انفصالها loolu dayoon na waaye ziyaara tawdix moo tax mu yokkaat ci lii mu bëgg a yokk mu ne wa nawciha ittifaaqan aw luzuuma in yakun ittisaalu in yakun ittisaaluha macluuma wa fi infisaaliha ittihaadun baadi ay fi ittifaaqin kaana aw cinaadi nee na wa fi infisaaliha kadalika niki noonu wa nawciha nee na نوع قضيه بيتم دا نوار بوك شرطيه موخم اتفاق ولا لزوم اتفاق يوخون نيو قضيه يوخم انت دا فا داجي رك اما واي نيكول لوخم لزوم يما فا ام دون دا شرط لا نكاي تود دو لزومي لو كل ما كانت الشمس طالعه فالنهار فالحمار ناهق كوب شرطيه لا بو خمنتني متصله واي اتفاقية كسلة نقيضة متمت كذلك نفورة نيو نك نك نك نك اتفاقية كموم مثلا مثال بجا خساق كل ما كان كل ما رينك كل يوم موجب فوف كل ما رك كل يوم موجب لا تشرط يا دنا عندي سوري كيف مانام آه، سوري سني سني سني سني مثال دنا عندي مان ارا ديغا خام نيو جور سور كو نك كل ولا نك جزئي تي جزء ولا نك جزئي سالب ولا نك كل يوم موجب كل يوم سالب جزئي موجب جزئي سالب دنا واخ تي waye ñu xamani kullu ma fuq gis ak mahma de nek kulli ya mujaba shart ya muttasila misal ma jox sànq kullu ma kanat ash shamsu tali'an tali'atan fal himaru nahiqun bo xol li dafa daje nekkul luzumiya bu am ci digënté nahiqul himari lazim la ci tulu' ash shamsi dafa ittifaq rek lu melni naqidam dafa wara nek ittifaq xam mom manam misal ma jox sànq nga xamanteni ni ya mujaba la ittifaq ya naqidam day nek جزية سالبة اتفاق منه قد لا يكون إذا كانت الشمس طالعة فالحمار ناهق لي موي نقيضة آه، مم طبعا كاذبة له لتخ منك كاذبة اتفاق لنا كاذبة لك دفع دجارك موي موي موي منك كاذب وعينك دو لزوم كم نينكو خمي مني ونوعها اتفاقا او لزوما ولا لزوميا لزوميا نك بنكو جخل مثال بوي مثال ينجكو جخل بوني مم بونيون كل ما كان الشيء إنسانا كان حيوانا نقيض بفرنك قد لا يكون إذا كان الشيء إنسانا كان حيوانا الكاذب له للمي ونوعها اتفاقا او لزوما ان يكن اتصالها معلوما فك قد دفنك قد متصلة وفي انفصالها لان فك هناك منفصلة تم اتحاد باد اتحاد فارم سنديغنت اي في اتفاق ما ام ني دبو اتفاقيه كان او عناد كوكو زياره توعدي حنا وقلنا مثال مثال نكو مر دنج جارات معنام عنادية بأم فوق فك عناد بي دو عناد حقيقي معنى اتفاقي كسلة نكي نون تبي نقيد الأفر نك إن عناد بهم اتفاقي لدون لسن لجرون جاء مثال مثلا صنوا إما أن يكون إما أن يكون الإنسان حيوانا وإما أن يكون الحمار جمادا البوني من دائما مثلا تقولين أم كل يوم جبا ما جاكم منين دائما تي منفصلة بهم اتفاقي دائما إما أن يكون الإنسان حيوانا وإما أن يكون الحمار جمادا كي عناد أم في نم صدق كون الإنسان حيوانا أك كذب نم عناد بأم تي كون الحمار جمادا ndax ximaar du nekk jamaat abadan lii nag bii nekk sadiq bii nekk kaadiba ndax waxoon nañ loolu mooy loolu mooy nu mu tuddati inaat bi am foofu lañ soxla maanaam ñaari qadiya yi benn bi sadiq la bi ci des kaadiba loolu mooy inaat bi waaye inaat bi ittifaaq rek la ndaxte kaadibu jamaadiyatu ximaar yi kooku dafa dëppoog sotqo insaaniyatil maanaam xayawaaniyatul insaani lu mel noonu lol inaad la bo xamanteni ni ittifaaqi kese la naqiidam su doon ñëw na comme da ngaa waxoon daayiman imma an yakuna al insaanu xayawaana wa imma an yakuna al himaru jamalan li qadiya kulliya mujabala munfasila mut ittifaaqiya naqiidam suy ñëw dafa war a nekk dafa war a nekk juziya saaliba soni won woon soo ni qad laa yakuunu imma an yakuna al insanu hayawanan وإما أن يكون الحمار جمالا لي كاذب له واي آه، اتفاقية رجلة نك جبنا كاذب له اتفاقية كسرة لول موي أي في اتفاق كان أو عنادي مثال عنا الرمبنا في الدرس بين رمبنا تينا مبارف فهمنا ومن عجم أو خلوين أو هما وبمثال ينجلي من بهما نانا ومنع جمع او خلو او هما مانع جمع ولا مانع خلو ولا مانع مانع مانع حقيقي موم كذلك نقدون وبين مثال ينجل نجي مثال بلاي فاني من بهما لب لنتون موي بونك مثال ينجل دال كوي ديغ نداخ دول لنت مثلا بو وخون دائما اما ان يكون العدد زوجا واما ان يكون فردا كوكو كوكو كل يوم موجب له بو خامتني عناد حقيقي له دائما إما أن يكون العدد زوجا وإما أن يكون حرة لو ما نعرف جمعين وما نعرف خلوين له ما نعرف جمعين وخلوين له موي عدد منو نك فرد نك زوج منو بنا نك فرد بنا نك زوج كون فوق مو نك بن عدد بين داي نك فرد بابو نك زوج كوك ما نعرف جمع له اك خلو ييب لا بوله كوك نقيضه نك سوني هون نقول يا موجب واخنا دائما فوق فك نك كل يوم موجب منفصله قد لا يكون سونة قد لا يكون إما يكون العدد زوجا وإما يكون فردا للكاذبة ندخ دعنا وحني ينساي عدد ديني بنيك فرد بنيك زوج لول منو نك كاذبة أجيني من لول مي ومن عجم أو كل من أو هما وبمثال ينجدي من بهما نانا وإن تكن موجبة كلية نقيضها سالبة جزئية وإن تكن فكرة فنك من قضية موجبة كلية دي كلية موجبة مثلاً نقيضها لنك سالب الجزئية قضية قرب نك كل موجبة نقيضة بتفر أنك سالب الجزئية مثلا بقول من كل إنسان حيوان معنى أفراد الح... أفراد الإنسانية وخنا ساخلا من الحيوانية كوكو نقيضة بتفر نك جزئية سالبة نخ نقيضة أنك بعض الإنسان ليس بحيوان loolu da nekk kaadiba bu njëkk bi nekk sadiq boo gisee mooy kulliya mujaba ya wax ni maxmuul mi lépp lu ca nek dafa sax ñeel mbollem afrad mawduu mi kul insan hayawan ya wax ni lépp lu sifa bu nek ci hayawan ya sax na ñeel insaan ya ñu ñëpp saaliba juziya nak bu ñewé moy naqidam ta moy ba'd al-insani laysa bi hayawan ya dàq lol non ci yenn ba'd yenn afradi su fekkee saxoon na ñeel mboolem afraad yi kon nag su fekkee saxoon na ñeel afraad yëpp yëpp yëpp nga xëy xëy bëgg koo dàqal ñenn ñi loolu moo jur kadibu loolu tax mu nekk kasiba moo tax kuliya mujaba bi nekk sadiqa juzde saali bi nekk kasiba loolu mooy fi nga xamante ni taraf ijab bi moom moo am moomee sadiq léegi soo su fekkoon nag beneen bi tey su fekkoon tey xukm bi saxul ñeel mboolem afraad yi خنا دنجي على علي البن مانام بن افراد تي افراد الموضوع بي امول صفه بي محمول يور كون كين يورو كو ولا يين ني ني صاح لا داكو ني ديس ديل نانكو كون بوبا جوزي سالبه دا نيك دغ جوزي سالبه دا نيك دغ كليه موجب نيك كاذب لولو سوما لا كون مثال تاي سو كون لالو فين مثلا الانسان فرس مثلا soo jëloon màdd boobu tey nga ne kul insaanin fa rasum loolu jusiye saaliba day nekk dëgg soo ne laysa baadul insaani bi farasin day nekk dëgg ndax liñ soxla foofu mooy salbu ko ci ñenn ñi afraad yi ci jusiye saaliba te loolu am nañ ko maanaam maanaam dalaa bëgg wax beneen côté bi nga xam xam liñ joge joxe misaal bi nga xamante ne taraf bi nga xam mooy ijab mooy sa mooy mujaba taraf bi nga xamante ni mooy salbu bi nekk kaadiba ndax loolu lañ soxla ci naqib bu fekkoon tamit tey tey maxmul mi sifa ba ca nekk daara ci afraad mawdu bi amu ko ci wala sax yenn yee ko jël yi des jëlu ko kooku soo ko joxee juge saali muy dëgg masalan su fekkoon laalu ci dara tey boo ne woon linsaan faras ma dama joxe leen kulli insaanin farasun kooku maxmul mi mooy faras amul dara lu ci laaleeg afraadul insaan mooy benn du ci dëgg soo indi woon juge nga ne laysa baadul insaani bi farasin da nekk dëgg su fekkente ni tamit ñenn ñee ko jël ñi ci des jëluñ ko masalan maanaam ñenn ñi ñoo jël xukm bi ñi ci des jëluñ ko kadaalika ni ki noonu tamit day nekk dëgg rek masalan soo ni woon tey kullu xayawaanin insaan boo xool kullu xayawaan insaan baadu afraadil xayawaan moom moo jël xukmu insaaniya kullu xayawaan insaan déglu baax misaal bi kullu xayawaanin insaan baadu afraadil xayawaan yi moo jël sifa maxmuul mii di insaaniya léegi loolu tey soo jëloon mujaba la kaadiba la soo jëloon tey naqiidam nga ne laysa baadu lxayawaan bi insaan day nekk dëgg ndaxte yenn afraad yi ko jël yi te jëlu ko yi nga ko dàqal jëluñu ko kon fii ju ñaari misaal yi ma joxe sànq juse saaliba moo ciy nekk sadiqa kulliya mujaba nekk kaadiba ci misaal bu ñaareel bi kon te liñ soxla mooy naqiit na kenn ki nekk sadiq ki nekk nekk kaadiba boo gisee nag kulliya muujaba naqiidam nekkul kulliya muujaba ni moom ndax ñaari kulliya maanaam nekkul kulliya saaliba ni moom maanaam naqiid kulliya muujaba kulliya muujaba naqiidam ñëwul nekk kulliya saaliba laa bëgg wax lu tax naqiidam ñëwul nekk kulliya saaliba ixtilaaf kay foog mu am kulliya muujaba li nga xam mooy nawleem moy kull lu tax naqiidam ñëwul nekk kulliya saaliba comme moom كل انسان حيوان لو داه نقي دام نيول نيك كليه سالبه كوم موم نين لا نداخ نياري نياري كليه دانيو مانا نيك كاذبه نيم نيار دون سين كيف دو ووت مثلا كل حيوان انسان لول كاذبه لا لا شيء من الحيوان بانسان كاذبه تنقيد نياري نياري نياري كاذب من نيو نيك اي نقيد فوق بين بينك صادق بجلس انك كاذبه لول ما تحرير الكلام مرمونا فان تكون فكره فنك القضيه بموجبه كليه دي كليه موجبه فنقيضها نقيضا من فورنيك سالبة جزئية نانا وإن تكون سالبة كلية بفاكة دفنك تي كلية سالبة تي معنى بفاكة تي دفنيو نك كلية سالبة كلية سالبة لا شيء مثلا لا شيء لا واحد يمن نون دلوكو جانجلي كان ما كان من ينكو جانجلي من يخم مثالي لغري موي كلية بو خمنتني تنغا بخني أفراد الموضوع بي لا لول دارا دارا دارا بنتي أفراد الموضوع بي لا لول أك أفراد المحمول بي abadan loolu mooy kulliya saaliba laa chey min al insaani bi farasin masalan kooku kulliya saaliba nga ko naqiduha mujaba juziya lay nekk naqidam dafa war a ñëw nekk juziya mujaba laa chey min al insaani bi farasin naqidam dafa war a nekk baadul insaani farasun baadul insaani farasun kaadiba la kon kulliya saalib foofu moo nekk sadiq baadul insaani farasun kadalika aksi bi tamit boo gisee boo gisee kulliya saaliba naqidam nekk juziya muujaba ndax yaa wax ni afraadul yaa yaa dàqal sifa bi nekk ci maxmul bi mbooleem luy afraadul mawdu bi ndax yaa wax laa shay min insaani farasin benn xeetu lu ñuy wax insaan laalewul ak faras léegi nag muujaba juziya moom da nga ni am na ci ñenn ci ñu ko jël lol foog ben nek ci kaadib ben nek saadiq ndax bu fekkente ya wax ben laale wu waxat ni amna yene ko jël foog ben nek saadiq ben nek kadi lol ma tanaaqud ba nak su fekkente deug la la wul fenn ak mbollem mboolem al mawdu comme misal ma joxata nga xam insani ak farasiya wuñ dara insani du nek faras insaan du nekk faras faras du nekk insaan kon boobaa foofu kulliya saali bi mooy nekk saadiqa juziya mujj bi nekk kaadiba comme misaal bi ñu joxe sànq su fekkee nag ñenn ñi ñoo ko dul laale waaye ñi ci des dañ koy laale bu fekkente ni eh, xukm bi dàquwul ñeel mboolem afraad yi comme bi ñu joxe sànq boobaa dañuy xool ndax yépp a ko jël wala yenn yee ko jël lu ci mën a am boobaa kulliya saaliba day nekk kaadiba juse muuja ba nekk sadiq masalan bu fekkoonte ni tey eh, insaan ak xeewaan ku ne xam na ni afraadu insaan yépp xeewaan la léegi loolu nag nga jël ko dem tëggal ko kulliya ba. day nekk laa shay min al insaani bi xeewaan kooku نقيض باي نيك دغ مو نيك كاذب لا شيء من الانسان كاذب كون بابا نقيضم داي نيك بعض الانسان حيوان مو نيك صادقه بو فكنتني يني تي افراد يكو جيلي جي دس جيلو نكو كوم بوني وون لا شيء من الحيوان بانسان كوك بوي خول ليغا داخال حكم انسانيه لين تي افراد الحيوان نيوكو جيل كوكو تاي كليه سالبه فوفو داي نيك كاذب جزء موجب نيك صادقه te booy juzé mu jëm di nekk lan baadul xayawaan insaan mu nekk saadiq kon loolu mooy taxriiru kalaam bi léegi nag soo gisee ñoom juzé mu jëm ak kulli saalib la la la defante ñuy ay na ñu ñu ñu nekk ay naqiib maanaam tey lu tax juzé mu jëm utaluñ ko juzé saalib muy muy moo nga xam mooy nawleen naqiibu xaa mu jëm juzé la lu tax juzé mu jëm bi nga xam naqiibam kulli saaliba la lu tax juzé saaliba comme moom moom ñu ne ñu ñaar dañoo mën a nekk dëgg moo tax. comme juzya muuja ak juzya saaliba mën nañoo daje nekk dëgg ñoom ñaar kon mënu nekk naqid te naqid foog naqida yi foog la budda min iqtisamihima as-sidqa wal kadiba foog ñu seddoo kii nekk saadiq kii nekk kadib مثلا تي سو خون بعض الحيوان انسان بعض الحيوان انسان بي صادق لا ndax lenn ci afraadul xayawaan insaan la سوج كوك سارق لا سوج لون تمي جزية سالبة ني ال دالنا بعض الحيوان ليس بإنسان تمي دينك صادق ين أفراد الحيوان دون إنسان دينك صادقة تكون تدني شرط تي تناقض فوق بين منك صادقة بين منك كاذبة لول موي تحرير الكلام لول موي وإن تكون موجبة كلية بفكر أنت قضية بفكر موجبة كلية نقضها سالبة جزية لدون كذلك نكون جزء سالب نقدام كلية موجبة لنا كاربة وإن تكون سالبة كلية بفكرة أن القضية بدها هناك كلية سالبة مو من نقيضة موجبة جزء لنا نيجي نون موجبة جزء نقيضة مو كلية سالبة كن لول مو تناقض تي تي نمترة تي تي تي قضايا كن اختلاف الكيف رك نعمل شرط واي شرط تون اختلاف الكم نعمل نيو وود نيو وود صح كم نين تحرير ليجي مسائل يوي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله